أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala ñu ngi ak yéen ci téere yàlla tabaraka wa taala toll ci suratul baqara ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala tey ñu ngi jël aaya 30 aaya bi nekk sunu kanam borom bi tabaraka wa taala mu ngi ci digal yonentam bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu fàttali jaami yàlla yi mu fàttali jullit yi waxu yàlla tabaraka wa taala bi mu wax ak malaaka yi ci benn waxtaan te mooy xiwaar bu amoon diggante yàlla ak malaaka yi ca pey yu sell ya borom bi doon xamal malaaka yi ne dafa bëgg def kuutlaay ci suuf ku fi wuutu ñi fi nekkoon te mooy jinne yi kuutlaay goo xam ne ki fi wuutu li muy dogal li muy doxal mooy ay atte yu bàyyeekoo ci yàlla di ko atte ñi nekk ci kaw suuf jamono yooyu nag bi leen ko yàlla waxee malaaka yi laaj nañ laaj goo xam ne laaju pour xam la du ko laaju pour weddi ndax malaaka du weddi yàlla ne ko ndax kuutlaay googu day nekk kuy tuur deret di yàq suuf ci weddi yàlla tabaraka wa taala ndax ñoom malaaka yi xiyaas nañ ko ci jinne yi fi nekkoon ñu jàppoon ne bu fi yàlla tabaraka wa taala indee keneen day yàq ni jinne yi yàqe woon loolu la ñu ragaloon koo xam ne dafiy yàq tuur fi deret yàlla xamal leen ne moom yàlla ku xereñ la ku xam ñoom lu ñu xamul la kon aaya bi muy aaya fanweer ci suratul baqara moom la ñuy jël tey ci kàttanu buur yàlla tabaraka wa taala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جائل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد, من يفسد فيها قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ويسفك الدماء ونحن نسبه بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون برم تبارك وتعالى من وإذ فاتلكل qaala ba mu waxee yow muhammad alayhi salaatu wasalaam rabbuka sa boroom na nga fàttaliku keroog bi yàlla tabaraka wa taala doon wax ak malaaka yi wa is fàttalikul qaala ba mu waxee rabbuka sa boroom lil malaaikati ñel malaaika yi loolu ca pay yu sell la yu la woon ca malaul aala ca kaw borom bi tabaraka wa taala di wax ak malaaka yi man humul malaika ñan ñooy malaaka yi malaaka yi ay mbindeef lañ yu yàlla bind yàlla tabaraka wa taala moo leen bind ci leer ñu wuuteeg jinne ndax jinne yàlla nga ko bind ci safara ñu wuuteeg nit parce que nit yàlla mu ngi ko bind ci suuf kon ñoom malaaka yi lan lañ ay mbindeef lañ yu yàlla bind ci leer ñoo ne ci xadisu muslim yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na malaaka yi yàlla da leen bind ci leer mu ñëwaat ci xadisu aisha ci muslim ba tey yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam mu ne xuliqat almalaikatu min nuur wa xuliqa aljannu min maarijin min naar wa xuliqa aadam mimma wusifa lakum yàllaa ngi bind malaaka yi ci leer mu bind jinne yi ci safara bu am tàkk-tàkk mu bind aadama li leen yàlla melal te mooy suuf kon ñetti mbindeef lañ ñu bokkul malaayika yi ay jaamu yàlla lañ dañoo bokk ci aalamul xëyb monde boo xam ne monde kumpa la ñoom foofu la ñuy dund malaaka yi aalamul xëyb bi lañ nekk monde boo xam ne kumpa la jullit daf koy gëm même bu ko gisul laa taqaw alayhim hawaasuna sunuy jumtukaay yi ñun yi ñu yor mënul gis malaaka sunu bët mënul gis malaayika sunu nopp mënul dégg malaayika sunu bakkan mënul noyyi mënul noyyi malaayika mus mënu ko xeeñtu sunu loxo mënu koo laal sunuy jumtukaay yi ñu yor munul dégg malaaka yi ñoom malaaka yooyu yàlla rek moo yeyoo xam gim leen xam ndax moo leen amal moo leen sàkk yàlla bind na leen pour lan pour ñu topp ko di ko sàbbaal ak di ko sant ñoom yusabbihuna al-layla wan-nahaar wala yafturuun dañuy sàbbaal guddi ak bëccëg duñu sonn malaaka moog robot ñooyam xam ngeen robot malaaka yi ay robot lañ robot duñu sonn guddi ak bëccëg ñu ngi sàbbaal yàlla yusabbihuuna al-layla wan-nahaar guddi ak bëccëg ñu ngi sàbbaal yàlla lu ñu sonn ñoom lan mooy différence diggante malaaka ak jinne jinne tamit alamul xëy bi lañ nekk waaye ñoom ak malaaka yi am nañ différence première différence bi mooy malaaka ci leer lañ ko bind ñaareel bi mooy jinne ñu ngi ko bind kon ñoom ñaar wuute nañ malaaka dañ ko sant na topp yàlla du ko mooy mukk borom bi tabaraka wa taala ne malaaka yi sax laa yaasuuna allaha ma amarahum wa yafaluuna ma yumaruun ñoom du ñu mooy yàlla chaque jour ñu ngi ci li leen yàlla sant jinn nag am na ci ñoom ñuy moy am na ci ñoom ñu dul moy am na ci ñoom ay jullit am na ci ñoom ay yéeféer borom bi mu ne wa anna minna salihun wa minna duna dhalika kunna taraiqa qidada loolu moo lay wan ne ñoom am na ci ñoom am jullit am na ci ñoom ay yéeféer am na ci ñoom ñuy topp am na ci ñoom ñuy moy wa inna minna almuslimin mu- mus- wa inna minna almuslimun wa minna alqasitun faman aslama fa ulaika taharraw rashada wa amma alqasituna fa kanu jahannama hataba malaaka yooyu nag yàlla bind fa am lu ñuy liggéey lu njëkk mooy ñoom ay soldaari yàlla lañ ñoom malaaka yi yàlla leen tasaare ci àddina bi ci kawnu bi yàlla sant leen ay jëf yu ñuy jëf am na ci ñoom ñoo xam ne dañuy dañuy wattu doomu aadama ñoo koy garde booy dox ki nekk sa kanam ki nekk sa ginnaaw boo toogee ki nekk ndeyjoor ki nekk càmmoñ boo tëddee ki nekk ci bopp bi ki nekk ci tànk yi lan lañ fay def borom bi mu ne maa yalfidu min qawlin illa ladayhi raqib loo wax rek ñu bind ko ñoom loolu lañ lay garde moo tax doomu aadama war a ragal yàlla tey kenn ci ñun su président de la république boole ko woon ak ñaari gendarme ñu lay contrôler nooy def est-ce que fu la neex dem est-ce que lu la neex wax est-ce que lu la neex def déedéet pourtant yàlla mu ngi la booleeg ñii borom bi mu ne wa inna alaykum la haafidin kiraman katibin am ngeen ñaar ñu leen di garde nekk na ci yéen ñaar ñu leen di wattu xam nga ñoom ñaar lu tax ñu doy waar yàlla da leen a tagg ne duñ la fenal kiraaman la wax ñaar ñu tedd lañ ñu baax kon duñ la fenal kaatibiin dañuy bind lépp loo def am na ci ñoom malaaka yi seen liggéey mooy rey nit ñooy rey doomu aadama qul yatawafaakum malakul mawti alladi wukkila bikum thumma ila rabbikum turjaun waxal yow muhammad na nga wax nit ñi ne yatawaffaakum dina leen rey dina leen faat dina leen fi jële malakal mawt malaka bi yor dee kon dee yàllaa ko moom waaye dafa am malaka bu mu ko jox moom la ko chargé moo koy def mu tudd malakul mawt wukkila bikum moo leen di topp fu ngeen dugg mu dugg fa kenn ci ñun mënu ko rëcc ragalul kenn rusul kenn tiitul kenn moom malakul mawt yërëmul liir bu juddu léegi wegul boroom xam-xam ragalul karateka tàppetul buur liir bu tooy xeb koy yërëm ñeewante ko boroom xam-xam bu mag nga rus ko karaataka nga jaay ko doole mbërum làmb buy doole nag lu mu njool njool mu teg ko ci suuf kooku mooy malakal mawt kenn ku nekk bis bu nekk dina la ziar si juróomi yoon pour war nga dee wala waroo dee su nekk ci bis bi am na ci ñoom ñoo xam ne malaaka yi yunazzilu bil wahyi ñoom la yàlla di def seen diggante ak yonent yi yàlla day tànn yonent mu nekk nit mais diggante yàlla ak yonent boobu il faut mu am benn malaayika bu fi dox yunazzilu almalaikatu birruhi min amri ala man yashaa'u min ibadi yàlla nee na malaaka yi yunazzilu almalaika malaaka mooy wàcc bi ruux min amrihi ala man yasha malaaka yi ñooy wàcce wahyu ci ku ko neex moom yàlla ci nit ñi ci jaamam yi min ibadihi am na ci ñoo xam ne ku mel ni jibril mooy malaaka bi nga xam ne mooy dox diggante yàlla ak yonent yi mooy wàcce téere yi gis ngeen nu mu amee kuy rey am ñuy garde noonu la amee ku nekk diggante yàlla ak yonent yi wa minhum man yaqumu bi tasbiti almuminin inda mulaqati al aada am na ñoo xam ne ci malaaka yi ñoom lan mooy seen liggéey su jullit yi di xeex ak yéeféer yi ñoom ñooy ñëw di dëgëral jullit yi di yokk renfort bi yenn saay sax mbir mi laaj ñu xeex ñu xeex ñoom malaaka yi comme ni mu amee woon ci badr borom bi mu ne is yuha rabbuka ila almalaikati anni maakum fa thabbitu alladina amanu keroog ba malaaka yi wàccee badr yàlla moo leen doon jàngal nu ñuy xeexee ñoom malaaka yi yàlla ne malaaka yi bu ngeen dajeeg yéeféer yi na ngeen dóor ci baat yi dóor ci loxo yi jaasi bu ñu la ko dóoree ci baat luy xew gis nga point point yi gën a dangereux ci xeex la leen yàlla jox mooy dóor leen jaas yi ci baat yi bu bopp bi daggee kooku dina xeexati dóor leen jaas yi ci poignée yi boo dóoree ci poignée bi loxo bi nu muy def day kët loxo bi dootul mën a téye jaas yi keroog foofu la yàlla doon wax ne malaaka yi nit ñu dóor yi fiir yi kon xoolal yàlla bëgg bi mu bëgg nit ñi mu defar ay malaaka yoo xam ne jullit ñee yéeféer yi bu ñuy xeex sax yàlla mu ne malaaka yi anawa keroog yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam moo doon ñaan yëkkati yàlla ay loxoom ba kaalaam wadd abubakrin saddiq radiallahu anhu wa ardaahu mu ngi ci wetu yonent bi bi kaala gi waddee mu jël ko tegaat ci bopp yonent bi kaala gi wadd mu jël ko tegaat kaala gi wadd mu teg ko ba caag mu ne abubakar doy na yàlla du neenal sa ñaan abubakar na yonent bi ñaan bi doy na yon yow yonent yàlla duñ neenal sa ñaan yu jékki-jékki rek cortège malaaka yi commencé jaaj lan lañ doon def dañ doon jàppale si jullit yi malaaka yi gëm leen lan la gëm malaaka yi lan la ah gëm malaaka yi laa wax lan la farata la wala sunna la wala mustahab la wala mandub la ku gëmul malaaka yi yéeféer la ndax dafa bokk ci suñu pas-pas ginnaaw gëm yàlla lu ci tegu kamarkaanul iman ponk ngëm yàlla ñaata la juróom benn al imaanu billah al imaanu bil malaayika moo ci tegu gëm yàlla rek malaaka yee ci tegu jullit day gëm malaaka yi même boo leen gisul yajibu al imaanu bil malaayika wa bima warada fi xaqihim min sifaat wa munkar wujudi almalaika kaafirun dafa war waxuñu dañ koo sopp de dañu ne yajibu dafa war ni nga gëmee yàlla noonu ngay gëmee malaaka yi ci seen àq li ci war du ñu lekk du ñu naan du ñu ay góor du ñu jigéen ku wax ne malaaka yi ay doomu yàlla yu jigéen lañ yéeféer nga wax yàlla waxul malaaka yi ay doomu jigéenam lañ loolu ku faaru Quraysh ñoo ko doon wax ku wax malaaka jigéen la yéeféer nga malaaka du góor du jigéen du lekk du naan mbokk yi bokk na ci jeexital yi nga xam ne bu ñu gëmee malaaka yi dina ko jeexital suñu dund mooy dinañ am ak dal ab tumaaniina soo gëmee malaaka yi di nga am dal foo nekk comme li yàlla wax ne sooy dox am na ñu lay wott kon di nga am dal nga posé wu lépp looy def nga def lu leer ñi ma amee ñu lay wott muy ñaar noonu la amee ñu lay xaar biir bàmmeel muy ñaar ñu la nar a laaj say jëf noonu la amee ñu nekk safara bis bu la yàlla nattoo ba dugal la fa ñoo ñoo lay mbugal noonu la amee ñu nekk aljanna bis bu la yàlla baaxee nga dugg aljanna ñoo ñoo lay bégloo soo leen gëmee da ngay am ak dal waaye da ngay am ak wéttaliku nga xam ne foo nekk wéetoo moom dañ lay wéttali ndax da ngay yëg ne am na ñu lay wattu am nay soldaar yàlla tàggat ñu nekk sawet ñu lay aar di la protéger donte ne yow yëgoo ko donte ne yow yëgoo ko da ngay dégg ñu ne Ousmane Ibn Affan ku bëri woon kersa la radiyallahu anhu wa ardaahu dafa bëri woon kersa ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yenn saa yi sahaaba yi dañ daan ñëw fekk mu tëdd defeenu nii tëdd benn côté nii ku ñëw Abubakar day ñëw mu ne ko nii Umar day ñëw mu ne nii benn loxo mais bu séenee Ousmane day jóg toog ñu ne kii nag mu ne kii yàlla da ko rus malaaka yi rus ko kon foog ma rus ko lu tax Ousmane bu daan tëdd day fay lampe bi sàngu ba pare doogu simmiiku suñ ko nee lii nag mu ne damaa rus malaaka yàlla yi wala ñu gis samay awra ñun bu ñuy sëy dañuy taal vees bu ñuy sëy laa wax ñun dañuy taal vees ba pare li gën a garaaw da ngay indi vees bu xonq ba ci bopp lal bi taal allumé alimenté ala noir bu ma waxul dëgg wax leen waxoo dëgg day kuy tëdd taal làmp ngan futteeku sànni fële tubéy ji sànni fële grand boobu bi daf yaramu neen surtout tàngaay waxee nga ne laa damay fiixal ay nal xayaa ana kees doo rus sa borom doo rus malaaka yi nga nekk Usmaan moom daa bëri woon kees noonu la meloon ndeysaan war a yonent bi rusoon ko ixwaan yi ñaareel bi mooy xirsul mumin ala taati rabbihi xër bi nga xam ne jullit dina ko xër ci topp boroomam wa adami muxaalafati li amrihi soo yégee ne malaaka yi nga ànd ak yow di nga xër ci topp sa boroom dootoo wuuti ak moom tabaraka wa taala comme ni ma malaaka yi comme ni waa Badr yëge woon ne ñoom kat wéetuñu malaaka yi ñu ngi seen wet doon leen jàppale keroog Badr kon ñi ñooy li mooy malaayika malaaka yii nag ñu wax ni ñoom la yàlla dajale woon keroog ca pays yu sell ya doon leen wax ne dama bëgg bëgg bind benn mbindeef moo xam ne mooy wuutu suuf ca ña fa nekkoon mu ne wa is fàttalikul qaala ba mu waxee rabbuka sa boroom lil malaaikati ñeel malaaka yi lan leen yàlla wax mu ne inni man jaailun damay def fil ard ci suuf xalifa kuutlaay ku fi wuutu léeg nga dégg ñenn ñuy firi aaya bi ñu ne damay def ci kaw suuf ku fi wuutu yàlla am na ñuy firee noonu aaya bi xalifa ñu ne ku fi wuutu yàlla di ko fi remplacer yàlla kan moo ko mën a remplacer yàlla ko mën a wuutu fan la nekkul sax ba nit di ko fa wuutu fan wa huwa maakum ayna ma kuntum bi ilmihi wa qudratihi fu nga nekk mu nga fa ak ci kàttanam ak dooleem ak xam-xamam kon noo koy wuutoo yàlla kuutlaay gii mu wax mooy ñi fi nekkoon di yàq yàlla jële leen fi indi fi doomu aadama mu war a wuutu defar suuf si wala mu ne leen inni man jaailun damay def fil ard ci suuf xalifa man yaxlufu gayruhu wal muraadu bihi huna aadama alayhi salaam bindeef moomu nag aadama la woon aadama la yàlla bind wax naa leen ko ci qisasul ambiya ni yàlla bindi aadam kon du jar tey ñu ci dellu siwaat jàng ngeen xam ngeen ni yàlla bindee aadama lan la ko yàlla bindee ah suuf ak ban ak ak deret deret laa dégg aadama kay ba ñu koy bindee deret fekkewul mu ne bi yàlla waxee loolu malaayka yi lenn rek ci lu ñu bàyyi woon sànq ci malaaka yi malaaka mën na soppaliku malaaka day soppaliku mën na nekk nit yenent bi sallallahu alayhi wa sallam daana ñëw ci moom malaaka boo xam ne day soppaliku benn nuroog benn saxaaba kan la jibril jàng leen xadis umar Omar nee na toog nañ ci wetu yonent bi benn waaye ñëw boo xam ne kenn ci ñun xamu ko laa yaarifu minna ahad wala yura alayhi asaru safar ba xadis bi di jeex lan la yonent bi wax xam ngeen kii kan la woon gars yi ne déedéet mu ne Jibril moo ñëwoon di leen jàngal seen diine su daan ñëw ci yonent bi day yor melokaanu benn saxaaba bu tudd saxaaba bu tudd dihiyatul kalbi melokaanu kooku lay ñëw saxaaba yi dafa ne duwaa jooju la fekkatu moom malaaka mën na mel ni nit mën na soppeeku bëri na ay riwaaya yu bëri ci sunna yonent wax malaaka wàcc na yor melokaanu doomu aadama ñëw ci yonent wala mu yëw ci ay nit bëri na trop jàngeen benn ñaan bu nekk ci benn téere bu tudd Salahu Yaqzan benn waay bu tukki woon commerçant bu mag yoroon bagage am gëléemam jóge Saam jëm benn dëkk ci Yaman walla ci biir Hijaz bi mu demee ba ci digg àll bi benn waay dab ko ne ko foo jëm mu ne ko dëkk sàngam mu ne man tamit falaa jëm mu ne kon mun nañoo ànd du ñu wéet mu ne bismillah ñu dox tuuti waa ji ne ko waayow fi nga jubal nii nag lu tax nga jaar fa mu ne ko man chaque jour su ma tukkee ba ñëw fii laay jaar mu ne ko am na yoon bu gën a gaaw mu ne ban yoon mu ne ko yoon bii mu ne kon nañ jaar noonu yow kon yow xam nga fi de mu ne ko man xam naa àll bi mu ne kon nañ jaar boobu waa ji daal di tegg yoon ba mu doon jaar daal di jaar ak waa ji kuy kuy gunge beneen yoon ñu dox dox dox dox lu sori affaire bi jaaxal waa ji ne ko yow yoon bi nga jaar nga ni moo gën a jege mu ne moo gën a jege mu ne mais man daaw ma dox lu toll nii te yegg naa dëkk ba mu ne non yow dëkk leen ñu yegg nan def ñu doxaat lu sore sore sore sore ndeke waa ji da koo nax bandi la daf ko dévier jaaral ko ci àll bi soril ko dëkk bi bi mu demee lu sori mu ne ko yow mu ne ko hee noppil dangaa bëri wax waa ji commencé tiit ñu dox tuuti mu gis ay yaxu gëléem ak yaxu fas yu dee ñu dox tuuti mu gis ay bopp nit ak ay yaxu nit mu xam ne dañ koo nax mu ne waa ji waa ji ne ko hee gisoo lii mu ne mu ne xam nga ne bala may bàyyi nga mel nii waa ji ne ko teg maa dimbali damaa njaboot amaa may doom man la ñu yaakaar ne ko su ma la bàyyee da ngay dem dëkk ba feeñal ma moo tax mu ma la bàyyi mu ne ko jëlal gëleen géeg li ci nekk lépp nga bàyyi ma dem mu ne ko loolu moom maa ko moom moo ma toog boog moom moo nekk na sama moomeel dif bi ma leen ne nañ jaar nii nga topp ma mu ne waa léegi nag ah léegi nag waaw kon may ma ma julli ñaari raaka bopp tàggatoo ne ko bismillah waaye daal di jàpp julli ñaari raak ci sujjóotam bu mujj mu daal di jàng ñaar mu ne yaa waduud yaa waduud yaa waduud yaa zil arshil majid yaa faalan lima yurid أسألك بوجهك الذي لا يضام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا أركان عرشك أن تغيثني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني مرادي سيد تاي سلمل واجي دال كو ييو بوم دور دم باي راي رك مو ديكو نه بوكو راي mu gees gisul kenn mu wëy mu yëkkati waar rek mu dégg ku ne bu ko rey mu ne wax kan ma wax ak man mu siggi rek gis benn waaye bu sol yére yu weex tal taxaw ci kanamam ne ko bu ko rey loolu la ñuy waxal bu ko rey mu siggi rek waa ji biti ko loxo dóor ko ci ginnaaw loxo bi ni mu dali fële dee mu daal di jël jaasi ji waa ji yoroon ñëw fekk waa ji fi mu tëgg mu dagg buum yi waa ñu ne ko yow la kan mu ne ko man malaayika laa bi nga ñaanee sa ñaan gi malaaka yëpp dañoo sujjóot ci kanamu borom bi tabaraka wa taala ndax bëgg laa sebe yàlla jox ma ndigal mu ne bi ma yàlla joxee ndigal nag damaa tiit ndax balaa ñu lay rey yàlla di ma dindi ci malaaka yi ndax yàlla joxe na ndigal moo tax mu ne bi ma nee bu ko rey bu njëkk ba damaa tiit maa ngi woon malaul aala foofu laa waxe woon bu njëkk bi bu ko rey mu ne deuxième bi ma ne bu ko rey maa ngi septième asamaan troisième bi laa taxaw fi yàlla nee na am man yujibu lmutatarra isa daa wa yuksifu suu ana kan mooy wuyu woote aji woote bu sonnee ba làqatu ci ginnaaw yàlla mu woote ana kan moo koy wuyu ku dul yàlla gis na kooku malaaka la mais ba muy wàcc wàccu lan la wàcc jàngeen aussi waa ji nga xam ne dafa sol daalam ci naaj bu tàng di ziyaare ji benn mbokkam yàlla yónni benn malaayka malaayka bi ñëw nekk nit koj ko ne ko foo jëm mu ne man ay ziyaare ji sama benn mbokk mu ne mbokk lan mu ne mbokk mu ne mbokk deret déedéet mbokk intérêt déedéet lu ngeen bokk sama mbokk diine la koy ziyaare ji ku gëj a gis dama ko nam mu ne loolu rek naaj bu tàng bii mu ne waaw mu ne ko man malaaka laa seedeel ne yàlla nee na bi nga jógee ba fii nga yem sa tànk boo dox rek yàlla baal na la sa bàkkaar kon léeg-léeg ay malaayika dañuy wàcc di ñëw ci kaw suuf mais di nekki nit du ñu nekk malaayika moo tax ñenn ci di ci borom xam-xam yi naan malaaka mun na nekk ñaari façon yëpp mun na nekk jinne mun na nekk nit jinne mën na nekk nit mën na nekk rabu àll mën na nekk leneen mais mënul nekk malaayika nit nag mënu cee nekk benn mais yenn saa yi dañu ne diw day naaw xaa daa may laaf diw njógteef la day jóg guddi jóge guddi fu mu jëm diw dëmb la lan mooy dëmb lan mooy dëmb kuy lekk nit nit mun na lekk nit kan kenn moom musa dox ba gis nit kuy rendi nit di ko lakk di ko lekk dëmm mu amul islaam ku mu wax mooy dëmm mooy kuy jëwaate mooy dëmm seytaane nag yenn saa yi mooy ñëw mixé wu ci nit di feeñal ci moom ay jëf di wax di def ñu defa ne nit ki la fekk jinne moo mixé wu ci moom jinne moo koy laal mixé wu ci moom di manifesté wu ci moom su ko defee jinne ji mooy wax mooy def lu nekk léeg-léeg nga gis jigéen góor di wax bu façon langage u góor léeg-léeg nga gis jigéen yor langage u góor wala góor yor langage u jigéen ah waaw lu mel noonu la moo tax mais doomu aadama moom mënul lekk moroomam mënu ko sax xamu ko sax mu nga borom bi ne tabaraka wa taala ñoom malaaka yi bi leen yàlla waxee loolu ne leen damay def kuutlaay ci suuf bu fi wuutu yàqkat yi fi nekkoon qaalu ñoom malaaka yi dañoo wax yàlla qaalu ñu ne ko atajalu fiha ndax da ngay def ci suuf man ñoo xam ne wala man koo xam ne yufsidu fiha dafay yàq lu tax ñoom ñu teg seen tànk wax loolu parce que dafa am ñu fi nekkoon yàq jinne ya fi nekkoon yàq kaw suuf si yàq bu ëpp kenn baaxoon ci ñoom muy iblis yàlla jox ko doole wàcc ay malaaka ñu ànd ak moom ñuy xeex ak jinne yi ba génne leen ci suuf si yóbbu leen ci goxi géej ci biir géej ak ci ruqurqaat yi ci suuf si mooy ci xur yi ak àll yi moo tax lu ëpp jinne fu muy dëkk mooy ci àll ci xur wala biir géej gis ngeen xale yi doon dem Espagne li ci bëri alku nañu c'est parce que jinne yaa ngi ci biir géej jinne yee leen doon nax jinne yee leen di nax am na ci ñenn ñoo xam ne ci ñoom ñi doon war gaali léeg-léeg ñu séen ay làmp yuy tàkk ñu defa ne dëkk baa ngi nale ñu dawal gaal gi ba essence bi jeex te nañ ko doon séenee noonu lañ koy séenee jinne yee leen di def loolu ak yeneen ak yeneen ak yeneen wala gaal gi di daw ba caag rek nga gis benn jinne ñëw lang ci gaal gi taxaw di leen xool ñoom ñëpp su ko defee ñoom ñëpp ñuy tëb di cëppeelu ci ndox mi di tëb di cëppeelu ba gaal gi vide parce que dañoo sóobu lu ñu xamul iblis fan la dëkk biir géej benn téere bu tudd xewaaru saxafi maa jinnul muslim jinne boobu mu ngi tudd Moustapha Kanjuur dafa tuub looy ree yow tur bi ngay ree nee na moom gis na iblis ñaari yoon bi mu nekkee liir maamam jël ko yóbbu ko pour iblis ñaanal ko nee na boobu moom liir la mais am na téeméeri at ak juróom fukk te liir la liir la mu am téeméeri at ak juróom fukk ñu yóbbu ko ci iblis na ko ñaanal wala liiru jinne téeméeri at ak juróom fukk jinne day gudd fan jamono yële passé benn waaye mu ngi ma doon laaj ne dafa dégg yenn ci borom xam-xam yi faj affaire yu jinne ñu ne ko jinne ji doon ànd ak yonent bi saa salaam dafa faatu jinne jooju nu mu tudd habibul haadi mus naa dégg benn borom xam-xam wax ne mi ngi dund mi ngi ci bàmmeelu baq yi di jàngal jinne yi jullit yu tuub sahihul buxaari ak sahihul muslim déggoon naa loolu ci benn borom xam-xam faatu na yàlla na ko yàlla yërëm kon qaalu ñoom malaaka yi ñu ne atajalu ndax da ngay def yow yàlla fiha ci suuf man koo xam ne yufsidu fiha dafay yàq yemul ci yàq rek wa yasfiku dima muy tuur deret tuur deret nan la ñuy tuure deret way rey ak rey ak jam loolu mooy génnee deret rey nit ku rey nit tuur nga deret ku jam nit tuur nga deret ndax yow yàlla nag da ngay def ci kaw suuf ay yàqkat comme tey ni ñu yàqee suuf si da ngeen di yaakaar ne yàq suuf mooy ñëw fekk fii mbalit nga tuur ko léegi ngeen yaakaar ne mooy yàq suuf yàq suuf mooy li ngeen gis Sénégal football bëre musique fecc ah sàngara njaaloo ah loo wax rek lu ñëw sa xel ci lu bon rek loolu mooy yàq kaw suuf lii ñu wax ni benn bu nekk day yàq waaw waaw lu nekk loo wax am rek day bokk ci liy yàq suuf xoolal tey dëkk bi nu mel lépp a yàqu barki démb démb la woon juma juma ji ma doon jullee dama toog nii lal sama siyaare ànd ak sama benn élève mu jékki-jékki rek ne ma oustaz xoolal ma xool rek gis benn waay buy julli silib baa ngi génne dafa crise karas su rukoowee silib bi yëpp génn mu ne ma xoola xoola kii xoola kii xale bu ndawa mu ne ma xoola kii xoola kii ci jumaa ji waa ji bu rukkee woo silib bi yëpp ay génn daanaka lépp day génn tuuti moo ciy des bu bu ru- bu bu yëg- bu siggee ci rukoo yéegalaat xam nga ne lii loolu loolu du yàq kaw suuf su góor demee ba dootul yeew tuwéyam ci ci ci ci ndiggam da koy bàyyi te nag li ci garaaw sax yenn saa yi nga gis silib boo xam ne toog na 15 ans fóotuñu ko tilima tilima tilim ba subhanallah mu leer na la kii gëj nañ koo bàcc kon loolu loolu ci ban diine la loolu day yàq suuf suuf mooy yàlla moo koy yàq ñàkk a topp yàlla mooy yàq suuf gis nga li ma leen di wax nii surtout ci apprenti yi ñoom moom bu ñu forcer seen silib yi moom waaw da ngay gis kuy laaj paas silib yaa ngi ci biti lépp a ngi ci biti nga ne ko waaw grand doo yëkkati lii jaajëfaay ak asa jéggalu jéggalu jéggalu jéggalu koy jéggalu doomu adama moo tax topp yàlla rek mooy dëgg ku topp yàlla rek da ngay normal mais ku toppul yàlla xam nga yàlla dafa wax ci quran ne ñu ma toppul damay leen di damay dem ak ñoom ba su marada naahu loolu mooy loolu ci aaya suratu araf yàlla mu ne ulaika kal an'am yamu fa de mu ne balhum adal gis nga boo toppul yàlla wallahi doo am xel doo conscience mukk ci àdduna yëfu dof rek ngay def boo toppul yàlla yëfu dof mosu leen gis kuy topp yàlla ñu gis ko ne xoolal dof bi abadan ku toppul yàlla rek ngay xool am loo xeeb ci moom ku toppul yàlla xam nga lu tax yàlla fu mu nekk day mat fu mu génn day manqué moo tax kuy topp yàlla boo ko gisee ndeysaan da ngay gis lépp mat lépp day correct mais ku toppul yàlla saa yoo gisee rek daal di yëngal bopp xam ne kii am na lu manqué ci moom sunu benn borom xam dana wax ne foo xool nit nga ni "Hum", nga ni cam nee na foofu yàlla moo fa manqué su fa yàlla duggoon rek day normal mbokk yi topp yàlla rek mooy dëgg réew mi dootul baaxate ci kaw suuf lu dul ñu topp yàlla dara du ko baaxal dara même bu courant bi ñoon bu ñu demoon léegi léegi ñu indi juróom-ñaar fukki junni technicien yu ànd ak la du tax mu baax leneen beneen problème day ñëw Sénégal courant lañ mujjee am ci problème courant lañ mujjee am wala ah beneen bu ñu réglé courant bi leneen mooy ñëw fekk topp nu yàlla yàlla rek la ñuy topp am jàmm malaaka yi ne ndax yow yàlla da ngay def ci kaw suuf ku koy yàq di fi tuur deret gis ngeen tey tuur deret nu mu bare tuur deret reyaate jamaate def lu la neex da ngay wax ak nit mu toj butel ne la damay naan sa life yow tey am na ci bandi yoo xamante ne pour ñu wax la ne ñoom bandi lañ bala ñuy xeex ak yow dañuy jël paaka jam seen bopp ba pare ba mu nàcc ñu ne la maa ngi ñëw su ko defee boo nekkee tàppet comme waa jaa ngi nàcc yow nga abale ñu topp la nag moo tax loolu nga gis léegi ci oto yeeg fépp gars yi ñaari nit rek ngay ñëw yor jaas yi ne ko crash ci tali bi jaas ci génne ay étincelle nga dégg ci ah ay jaas yi lañ yor de jaas yi jaas yi jaas yi ñëpp di daw lu ko waral yàqute mbon ñeme yàlla bay tuur deret ak tuur deret ni ko yàlla araamalee rey nit ku rey benn nit yaa ngi mel ne rey nga àdduna bi yëpp ku dundal nit fa ka annama ahya nnaasa jamia waaye ku rey julit wa man qatala muminan mutaammidan fa jazaauhu ku rey julit te yaa ko tey yow jahannama nga jëm direct léegi nag ñun ñu am nguur yoo xam ne dañuy reyaate dañuy rey nguur goo xam ne dalay rey nguur goo xam ne ku mu jàpp sax dalay jaral nga naan feebaruma sojuma jullit laa duma xaru parce que xam nga looy fekki parce que xam nga ne yow ñi la jàpp ay reykatu nit lañ moo tax ngay joxe déclarer sa bopp di leeral balaa ñu lay rey parce que dañoo fàtte ne ndeysaan dañu taxaw ci kanamu yàlla loolu rek moo ñu indil problème te jël nit rey ko ci jamono yi ñu toll nii ñu ngi ci euh, ñaata 11 ans ci alternance ñaata nit lañ rey Sénégal yoo xam ne ba léegi xamuñu fu ñu mujj ay Balla Gaye waa ji ñu reyoon fi ci corniche bi ndaw si ñu daggate woon mën nañ ay dizaines yoo xam ne kenn xamul ku leen rey même yenn saa yi sax buñ toppee enquête yi bay ciblé ay nit dara xaw dañuy jékki-jékki libéré ñooñu ñëpp ne du ñoom kon kan la ñooñu lu leen di rey ay picc wala ay kaña yàlla bëggul ku tuur deret ci kaw suuf borom bi tabaraka wa taala mu ne ñoom malaaka yi bi ñu waxee loolu ba pare dañ cee teg ñu ne wa nahnu nun malaaka yi nu sabbixu ñu ngi sàbbaal bi xamdika di la sant wa nu qaddisu laka ñu ngi lay sellal di la màggal yow yàlla guddi ak bëccëg moo tax sànq yàlla waxoon ne yusabbihuna al-layl wa nahaar su fekkee da ngaa am ñaari doom nga woo nga woo leen ñoom ñaar di leen yónni nga woo kenn ki di ko yónni ku makki ne ku ndaw ki nga bëgg a yónni ku makki ne la kii jàmbar mi kii nga xam ne mënul daw kii nga xam ne gaawul moom lan la bëgg ah su yàlla ne damay wàcce kuut laay ci suuf malaaka yi ne ko ndax danga fay def koo xam ne day yàq day tuur deret ba pare ñoom tagg seen bopp lan lañ bëgg yàlla wàcce leen fi moo tax ñu ne wa nahnu nun nu sabbihu ñu ngi sàbbaal yàlla tabaraka wa taala am na malaaka yoo xam ne bi mu leen bindee ba léegi amuñu leen lu ñuy def dañuy sàbbaal rek dañuy sàbbaal guddeeg bëccëg yonent bi saa salaam nee na asamaanu premier mu ngi bëgg a daanu seen kaw mi ngi kiic kiic ndax ay malaaka yi sàbbaal malaaka yi ñoo ëpp nit ñi de moo tax yowmal xiyaam bu nit ñi dekkee ba taxaw jinne yi dañuy ñëw wër nit ñi malaaka yi ñëw wër wëraat yàlla daa di woose nag daa di woote daa ne haada yowmul fasl jamaanaakum wal awwalin fa in kaana lakum kaydun fakiidun ya maasara al jinni wal ins in istataatum an tanfuzu min aqtaari samawati wal ard fanfuzu te ku mën a rëcc rëccal oo jëm asamaan amatul suuf amul oo jëm fooy nëbbatu fan ngay làqatu ah loolu ngeen dégg doomu aadama naan yaqulu l insaanu yawma izin ayna al mafar ay waay ana rawukaay bi fan laay rawee tey yàlla mu ne ko kallaa laa wasar tey rawukaay amul tey ilaa rabbika rek yawma izin il mustaqar ixwaan malaaka yi nee nañ yàlla wa nahnu nun nu sabbihu ñu ngi lay sàbbaal sàbbaal mooy lan mooy wax subhanallah bi xamdika ñu ngi lay sant alhamdulillah wa nuqaddisu laka ñu ngi lay sellal sellal gu yeyoo ak sa màggaay at tatxiir wal bu'du amma la yambagi yow yàlla ñu ngi lay sellal di la sàbbaal di la bàkk di la kañ lépp loo xam ne dafa wuuteeg sa màggaay yow yàlla ñun malaaka yi dañ lay sori loolu ndeysaan wa nuqaddisu lak fa nunazzikuka dañ lay laabal ci lépp loo xam ne yow yàlla meloo loolu yow yàlla sori nga loolu moo tax ñii di wootewu naan yàlla yàlla ñun yàlla lañ man gis naa yàlla man yàlla laa yow yàlla nga kee yàlla la xamuñu seen bopp xamuñu seen bopp dañoo réer rek dañoo jara waxtaanal jara yedd ñu delluwaat xam ne lu nekkul woon diine démb mënul nekk diine tey Aboubacar musul wax gis naa yàlla wala jàng ngeen ko fenn jàng ngeen fenn Aboubacar ne gis naa yàlla jàng ngeen fenn Umar ne gis naa yàlla jàng ngeen fenn Ousmane ne gis naa yàlla jàngeen fenn ali ne gis naa yàlla jàngeen fenn bilal ne gis naa yàlla musab ñooñu dañoo sori est-ce que jàngeen Serigne Touba ne gis naa yàlla alaaji Malik nag waaw ba pare yéen ñii fii ngeen bëgg a lekk cere ak mbuum ba pare gis yàlla ixwaan aaye bi ñu doon jàng te mooy aaya 30 ci suratul baqara yàlla lan la tontu malaaka yi biñ ne biñ waxee wax ji ba pare qaala yàlla ne leen inni man aalamu xam naa maa laa taalamuun lu ngeen xamul man yàlla xam naa yéen malaaka yi lu ngeen xamul noonu yàlla waxee ko malaaka yi noonu la nekkee ci ñépp ci mbindeef yi yàlla li mu xam kenn xamul ndax yàlla moo am xam-xam ñun amuñu xam-xam lu ñu am xam-xam lu tuuti la wallahu yaalamu wa antum la taalamuun lu tax wa ma utitum min al ilmi illa qalilan yàlla wa anna allaha bi kulli cheyin alim qad ahaata allahu bi kulli cheyin ilma moo da yàlla mu ne leen inni aalamu ma la taalamuun man xam naa lu ngeen xamul aaya bi ñu doon jàng dinañ ci jëlee ñeenti mbir bi ci njëkk mooy su'aalu man laa ya'lam xayruhu mimman ya'lam laaju koo xam ne xamul mu laaj keneen koo xam ne dafa xam ku xamul da ngaa war a laaj malaaka yi ba ñu xamulee laaj nañ kon ku xamul laajal diina ji duñ ci nangu nit naan xawma diine lislaam duñ ci nangu ku ne xawma fasalu ahla zikri in kuntum la taalamun ku xamul laajal laxdari lañ jàng mu gën a tuuti ci téere fiq yi ci réew mi soo ci duggee bunt bu njëkk bi daf lay wax ne wala yahillu lahu an yafala filan xata yaalam hukmallahi fii amoo droit def benn mbir lu dul nga xam li ci yàlla wax jullit mooy koo xam ne loo def suñ la laajee da ngaa war a wax fii la ko yàlla wax gis nga même téere boobu ba muy continuer mu ne boo xamul laajal wa yasalal ulama laajal borom xam-xam yi ñaareel mooy adamul intihaar assail wa ijabatihi aw sarfihi bi lutfi mooy ki laaj kenn waru koo gëdd kenn waru koo tuutil dañ koo war a tontu ci lu lewet wala yàlla buur bu toll na yàlla ne damaa bëgg a def nangam malaaka yi ne ko lu tax ngay def nangam ndax da ngay def nangam yàlla ak ni mu tolloog màggayam mu loolu la leen wax eh xa may wax ngeen ci teg ba safara ngeen jëm yéen ñëpp ndax mu leen ëpp doole moo leen moom waaye xoolal yàlla mu ne leen inni alamu ma la taalamuun am na ci tey boo demoon ci yenn saal yi fekk kilifa diine toog wax ba pare nga ne ko asalaamaaleykum sëñ bi loolu nga wax noonu ñu ne eh rey leen ko kii day diingal dañu lay rey loo def kenn du leen laaj yonent bi daan toog ñu koy laaj yonent bi daan toog ñu koy laaj muy tontu yonent bi daan dox ci mbedd yi ñu koy laaj waxuma laaj benn bis yonent bi dañ koo poñe ba baatu mbub bi dereetal nii dereetal poñe ko nii ba baatu mbub bi dereetal waa ji ne ko alal ji la yàlla jox jox ma ci ci laa bokk mu ne dem leen baytul maal ngeen jox waa ji ci alal ji xalal ñu ko poñe fii ñun tey ku laaj borom xam-xam ñu indil la problème borom xam-xam yi sax kenn du leen laaj kenn du leen laaj borom xam-xamu Sénégal kilifa diine yi laa ci jublu kenn du leen laaj ku leen laaj dee ñaar nag tax nañu leen duñ leen laaj ñaar doo leen gis pour laaj leen benn bi ñoo li tax kenn bëggul ku leen laaj parce que xamuñu ku xamul da ngay noppi doo bëgg ku la laaj waaw loolu am na ci ñetteel maarifatul badil xalq ci aaya bi dinañ jàng mbindeef mu njëkk nu ko yàlla bindee maarifatu ñu xam badul xalq nan la yàlla tàmbalee bind aadama loolu dinañ ko jàng ci aaya bi ñeenteel mooy sharafu aadam wa fadlihi aadama ku tedd la ci yàlla aadama ku tedd la aadama dong moo am droit ne man yàllaa ma bind te ba mu may bind loxoom la xam nga ñu yàllaa ñu bind est-ce que direct la ah direct lañu yàlla bind aadama direct moo tax keroog ba mu ne iblis lu tax nga sujjootoo da ko ne lu tax sujjootaloo mbindeef moo xam ne maa ko bind ci samay loxo loxo yàlla aadama aadama war naa tiitaru ba sonn yàlla ko bind ci ay loxoom loxoom yu sell yi la ko doon defaree jël ban bi di ko tàpp-tàppal yàlla yabalul kenn xoola yabalul sax malaaka yi yabarul jibril yabarul miik yow yàlla moo ko doon defar ci ay loxoom kon aadama dafa tedd yàllaa ko bind yàllaa ko jàngal yàlla mooy professeur am wa allamal aadama wa allama wa allama ku ko doon jàngal yàlla gis nga yàllaa ko bind jàngal ko kon kooku waroon naa bàkku de te waa Sénégal nag moom lañ gën a yab dañoo yaakaar na nag seen maam la looloo tax ixwaan yi kon aaya bi moo doon aaya 30 ci suratul baqara moom lañ doon def dars tey bu amee ay njumte ñu ngi koy jéggalu sunu boroom di leen ko jéggalu asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu